413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax rafetlu suñu ànd ak ci suñu gal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci bile jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk yi ci gën a fës bokk na ci uh, coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko ginnaaw complot bi ñu ci doon ñaaw njort kenn ci tantay Adji Sarr yi dal dinay firndeel lu ni mel moom mooy sëy ak nijaayu Adji Sarr bi nga xam ne Adji Sarr jot na jaar ci seen i loxo ci ji fer nee na ci fan yi ñu génn Adji Sarr woon nijaayam laata li lay coow di am doon ko wax ne ko dañu ko sant benn liggéey boo xam ne daf ko jëmale ci Adji Sarr Dakar li ko nijaay ji tontu dinañ ko yaatal ci biir xibaar yi li bloqué convocation bu Ousmane Sonko euh, ginnaaw document bi nga xam ne assemblée nationale ñoo ko war a notifié juge bu huitième cabinet moo waral ba léegi Ousmane Sonko dem lu ji ci bi nga xam ne moom la ñu ko dal di convoqué bu ñu sukkandikoo ci journal bu tey bi euh, dal di nañuy fas yéene jébbali boobu les document juge d'instruction bu huitième cabinet ni ki tey ngir ñu mën a janoo ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ñu dem ci Rufisque député Seydou Diouf dal dina ñuy tàll këram ni ki démb mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoo ko def ba léegi gisaguñu leen waaye ca garage ba la ñu dal di njëkkee tàll garage ba ak oto ba ba noppi dal di taal biir këram. du ci kenn koo xam ne jëlee na ci ay gaañu gaañu waaye am na ay dégâts matériels ca Rufisque ca Kër Seydou Diouf ñu wax ci euh, bébé Saloum mi nga xam ne euh, dal nañu koy teg loxo euh, ni ki samedi bi ñu weesu li ko waral mu di dañu ko dal di tudd ci mbiram ma phobie ñi nga xam ne ñoom ñoo di gendarmerie bu Kër Massar ñoo ko dal di teg loxo moom ak yeneen juróom-ñetti nit ba jamono ji ñi ngi garde à vue ba bu ñu moytuwul dinañu leen déféré fii lekk fan yu new ñu jeexale de la santé de l'action sociale fësal tey ci altine ji yem ak benn fan ci weeru mars mbokk yi xarit yi li mooy li gën a fës ci ponk yi ngeen taaxir lu bàkk bi jàll ñu faram fay l'information à sa aleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo ni ñu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu la ñuy koy faram-fàccee ko ak coowal Adji Sarr Ousmane Sonko ginnaaw révélation yu yees yi nga xam ne kenn ci tàntaay Adji Sarr yi daal dina koy def mu di umpaañam boo xam ne mooy sëy ak nijaayu Adji Sarr bu bokk ak yaayam mu ndey ak bayte ji feer li mu xamle mu di ab complot bu nit ñi doon ñaw njort moom bokk na ci ñi ko dëggal ndax nee na laata coow li di am Adji Sarr jokkoo na ak nijaayam jooju doon ko wax ne ko dañu ko santab liggéey bu jëm ci Ousmane Sonko kàddu yi ko nijaayam tontu mu di bu fekkee ne lu ñu koy sant la jëm ci Ousmane sonkoo nañu ko fay xaalis bu ko jaar boo xam ne bu ca génnee dina ca mën a dund dundal ci ak njabootam mu doon kàddu yoo xam ne tantam ji ñaawlu na ko nee ba mu ko waxee daal dina koy wax ni ko yéen a ngi dugg ci loo leen xamut ngir ñu rocceeku ci loolu ba mu seet waaye eh, nijaayam ji da koo teel a dànkaafu ne ko mu génn ci te itam bu fekkee ne am na ay projet yoo xam ne fas yéene na ko amal ci lu jëm ci wàllum commerce boo xam ne lu mu mëbatoon la dina ko financer xaalis bu takku ngir mu amal boobule commerce mu doon kàddu yi nga xam ne moom moo di tantay Adji Sarr ji nga xam ne moo nekk ca jifeer waaye eh, fasalul benn yoon tuuru nijaayu aji saar jooju nee na bu fekkee bëgg nañ koo xam rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di taskati xibaar yi na leen jaral ñu dagg paas ñëw ca jifeer ñu dem ci dossier bu Ousmane Sonko ginnaaw convocation bi nga xam ne daal dinay bloqué la ko waral mu di benn document bu waroon jógee ca immunité bu war a jógee ci assemblée nationale ci lu ñeel ba ñuy lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko te ñu waroon koo jébbal juge d'instruction bu huitième cabinet ba léegi dafa tagga dembe ñi nga xam ne ñoom ñoo di Euh, juge d'instruction bu huitième cabinet euh, jotaguñu ci boobu boobule document li waral ba léegi mënaguñoo convoqué ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci le journal euh, ni ki tey ci altine ji la ñu fas yéenee jébbali boobule dossier juge d'instruction bu huitième cabinet bi firndeel ne fileek ay heure wala fileek ay fan dinañu convoqué ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ndax ñi nga xam ne interrogé woon nañu leen ca jamono jañuy def boobu boobule enquête ci coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci mel ni borom salon bi Sidi Ahmed mbay ka Adji saar doon sekkal message ba ak jëkkëri borom salon bi dal dinañu leen di jébbal ab convocation bu ñu war a dem wuy ji dal nañuy tegaat yeneen ñaari nit loxo mu di benn gendarme ak benn policier la waral ñu teg leen loxo mu di dañoo ñaaw njortu ne dañoo bokk ci complice yi nga xam ne dañuy jox ay information ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ak yeneen ñaari nit yoo xam ne daal nañu leen convoqué woon euh, ginnaaw euh, déglu leen daal dinañu leen di libéré ñu ñibbi waaye dañu leen a euh, teg ay gët maanaam surveillance su sous surveillance la ñu nekk ngir ñu xool ndax lañu leen doon toppee ba waral ñu convoqué leen dëgg la am déet ci lu ñeel coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu wax ci arrestation militant yu Pastef yi nga xam ne daal dinañuy fësal lim bi ñu toll ci téeméer ak fukk ak ñetti nit yoo xam ne ñenn ñi ay enseignant ñenn ñi ay itam ay commerçante ñeneen ñi ci des di ay étudiant ak yeneen nit yoo xam ne dal nañu leen di fësal ay góor ak ay jigéen ñu ñenn ñi ñi ngi sous mandat de dépôt ñeenti nit ñi nga xam ne jot na nañu leen libéré ñu nekk sous contrôle judiciaire nekk na loo xam ne ni ñaa ngi koy ñaawlu bu baax a baax ak yi arrestation série yi nga xam ne moom la ñuy def ci nit yu Ousmane Sonko euh, enseignant yu Sénégal fas yéene nañoo bank seeni loxo li ko waral mu di seen naataango yi nga xam ne ñi ngi leen di jàpp ci anam wu doy waar ginnaaw bu ñu fekkee woon benn professeur ci classe am ci kanamu élève am daal di koy monote yóbbu keneen ki nga xam ne ab professeur la te ñu teg ko loxo mu di dàmbooj bu kisams moo waral enseignant yi banque seeni loxo ba jëmmi jamono ngir ñu libérer enseignant yi nga xam ne teg nañu leen loxo élèves yaa ngi woote wallu ngir ñu bàyyi li nga xam ne moom moo di enseignant yi balaa njàngum Sénégal di gën a sooxe comme at mi ñu weesu ki sampub laaj di Birahim Touré bu Sen TV la muy laajte ndax fanweeri minit yu massage ak ñetti minute yu bane ndax jar na li coow ci réewum Sénégal moytuwul réew mi dina takk guide religieux yi dal nañuy dajee ni kiy démb kër Ousmane Sonko ku ci mel ni Mame Matar Gueye vice président bu Jamra ak ki nga xam ne moom moo di Abbé ak yeneen kilifa yi yu nekk ci biir réew mi dal dinañuy dem ca kër Ousmane Sonko li ko waral mooy di nañu ko diggee woon askan wi dinañ def seen kéem kattan ba dox tànki jàmm ci coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba jàmm dellu si waat ci réew mi ñu dem ci Rufisque ak kër député bi di Seydou Diouf dal dinañu koy euh, taal ba léegi xamaguñu euh, ñan ñoo ko euh, taal mu doon loo xam ne itam lu doy waar la ñu di ay ndaw yoo xam ne dal dinañuy gis ne lu tolloo fukki ndaw ak lu ko toftal ñoom ñoo dem kër Seydou Diouf dal di da koy taal ginnaaw bu ñu jaaree ca garage ba njëkk taal oto ba ca la ñu taalee kër ga mi ngi amee nag ca site millionnaire démb ca ba vingt di jot ba léegi kenn xamagul ana kan moo def jooju la jëf wala ana ñan ñoo def jooju la jëf ba waral police dal dina ci ubbi ab lanket waaye daal dinañuy fësal ne du benn nit bu ci jëlee ay gaañu gaañu wala benn nit bu ci ñàkk kanam waaye am na ay dégâts matériel ñu dem ca université Assane Seck ba nekk ca Ziguinchor ñoom itam daal nañu fay taal. la nga xam ne moom moo di sancé euh, ba ñu fa débuté woon ci atum 2015 moom itam ba tey ñu ñan ñoo taal sancé euh, yooyu ca université Assane Seck waaye daal nañuy ñaaw njortu ne ay ndaw yu bokk ci euh, Pastef la ba waral daal nañu ci yóbbeeb l'enquête ngir xam yooyu les acteur nomination yu six magistrats ci réewum Sénégal dal di nañuy renforcer li nga xam ne moom moo di cour de compte ginnaaw bu ñu gisee ne c'est la première fois ñuy nommé li nga xam ne moom moo di ay magistrats yu kàddu mu Mamadou Faye mi nekk président euh, cour des comptes euh, ci njiitum réewum Sénégal mu def lu ni mel mu ne c'est la première fois njiitum réewum Sénégal di nommé li nga xam ne moom moo di ay magistrat euh, ci cour de comptes daal na leen di tàllal ay loxo ngir ñoo bokk si ci li nga xam ne moom moo di boobu boobule liggéey ginnaaw bu mu leen renforcer te itam doon na loo xam ne lu ñuy rafetlu la mu nekk juróo ñetti góor ak ñetti jigéen yoo xam ne daal dinañuy dem bokk jigéen yu Casamance yi dal di nañuy fësal seenu naqar euh, wuyu ji ci li nga xam ne moom moo di aada ak cosaan coow li nga xam ne ci la ñu dugal seen doom mu di Ousmane Sonko ginnaaw tuuma yi nga xam ne moom la ñu teg ci am ndoddam ba Sénégal yëngu mu di viol ak menace de mort Adji Sarr wax jëmale ci Ousmane Sonko jigéen yu Casamance ñoom kenn demul ñu des ci wane seenu naqar ni ki démb dal di nañuy def seen aada ak seen i cosaan yor seen i leget ak solu solu cosaan ngir nag dal di xeex xeex euh, li nga xam ne moo di àq ak yelleef bu Ousmane Sonko waaye itam euh, def li nga xam ne moom moo di seen i débat ñu des ci coowal Ousmane Sonko ni ki démb daal dinay dem ngir visiter ji fukki nit euh, téeméer ak fukk ak ñetti nit yi nga xam ne teg nañu leen loxo bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ca jëppal mu di jigéenu Pastef yi nga xam ne teg nañu leen loxo ni ki ajuma bi ñu weesu Ousmane Sonko ba mu fa demee nag dañu ko lànkal li nga xam ne moom moo di yooyu les visites ba bu ñu moytuwul woon tuuti coow daal di fay judduwaat ñu àddu wax ci leneen coow mu di coowal euh, bébé Saloum di làmbkat bi nga xam ne daal dinañu koy tudd ci coowal phobie ginnaaw juróom ñeenti nit ñi nga xam ne euh, teg nañ leen loxo ñi leen teg loxo di takk derrière ca Kër Massar la ñu leen di toppee mu di escroquerie ak li nga xam ne moom moo di jëfandikoo wàllum phobie ginnaaw bu ñu doon def seenu business ci diggante caaro yi ak Malika ba waral ñu dal leen di teg loxo euh, boobu ñu moytuwul ñu dal di leen di deferee ginnaaw ñoom Bébé Saloum ak i ñoñam euh, daal dinañuy fësal ne dinañu leen defere file ki heure ndax lañu leen fekkee ci ay faux bu ñu ko xaymaa mi ngi toll ci 1 million 200 ñu dem ci attaque armée à mai bi nga xam ne daal nañu koy euh, gis mu doon loo xam ne lu doy waar la ginnaaw bu ñu gisee ne dal dinañuy gisaat lu ni mel mu di attaque à mais armée euh, ci réewum Sénégal ginnaaw bu ñu fësalee génnuk àdduna ak Alassane Diop mi nga xam ne ñu ngi ko fàttee ca Ceneba ci kër Vieux Ndiaye 6 euh, loolu nag dal dinay taxoon Sénégal dal di euh, jóg pour ñaaw lu ni ñu gisaat leneen lu ci yees ni ki ci ajuma bi ñu weesu ca Gossas mu di Babacar Ndiaye bi nga xam ne itam dañ ko dóoroon bal ba mu ba ñu waraloon ñu évacuer ko fii ci Ndakaaru dal dinañuy wax ne génn na àdduna niki ajuma bi ñu weesu ba waral ndaw yi Gossas daal di jokko ngir jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di état bu Sénégal rawatina ki ñu dénk wàllum justice ngir ñu def seen liggéey ndaxte euh, lii war naa mën a dakk ci réewum Sénégal ndaw yi nga xam ne ñu ngi leen di boom te du mujj fenn euh, campagne aérienne nationale daal dinay renforcer li nga xam ne moom moo di ay roplaanam ñu gisaat beneen air Sénégal boo xam ne daal dinay atterrir ci aéroport international euh, Blaise Diagne bu jugee fa nga xam ne moom moo di Montpellier ba tax na daal dinañuy fësal banti bu avion la mu di Airbus A. 321 euh, ba tax na daal di nañuy renforcé lu ni mel ñenn ci réewum Sénégal daal di koy rafetlu jamono ji nga xam ne nit ñaa ngi nekk ci coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr am na ci ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci beneen fànn ñu jeexale ko ak point yu Covid 19 bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l'action sociale fësal tey ci altine ji yem benn fan ci weeru mars ci tas ñu jot a def ñaar téeméeri nit ak ñaar fukk ak ñeent ñoo dellu si am doomu jàngoro bi juróom-ñetti nit ñàkkaar nañu seen bakkan doolee lim ba ñàkkoon seen bakkan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 te buñ nee góor ngóoraa tax